Ah, waaw ñu ñu nekk ak en tête ki xam ne moom mooy Omar nekk journaliste également bokk ci de communication bu bu jot na Omar euh, ñu ngi lay nuyu ci Sénégal 7. jërëjëf Omar xibaar bu jot rek mooy ki nga xam ne mooy Ngagne Demba Touré ginnaaw ba mu ñëwee 6 mois d'exil ñu daal di koy arrêté mu dañuy firndeel ko information bi ni mel. ah non loolu résultat euh, loolu moo leen ko doon wax mhm. mais tey moom mhm. c'est pas encore une information qui est, qui, ah. d'accord d'accord d'accord d'accord kon euh, dañ koy bàyyi mu daal di confirmer moom seenu jël na la bon pour mu gën ñu leeral li nga xam ne mooy information bi waaye lu ñu a jàpp rek mooy euh, cellule communication bu jot na lañ gisee li nga xam ne mooy boobee information euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Maître dem Demba Touré ñoom ñoo ko bind vient d'être arrêté par la DIC direction division d'investigation criminelle ginnaaw nag bi nga joxee convocation depuis mois de juillet 2023 mu préféré li nga xam ne moom mooy l'exil après quelques jours ñu libéré li nga xam ne moom mooy des centaines de détenus politiques donc mën nañu wax ne ki nga xam ne moom mooy Ngagne euh, Demba Touré daal nañ koy daal dinañ koy arrêté fi nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy këram. Ngagne euh, Demba Touré nag si fàttali moom mooy le coordonnateur national de la jeunesse patriotique ñu gën ko xam si li nga xam ne moom mooy JPS euh, mu nekk également li nga xam ne moom mooy moom mooy greffier tribunal bu bu Ndakaaru moom maître Ngagne. Euh, Demba euh, Touré donc euh, l'info l'info est là il est arrêté. donc Ngagne xam ne moom mooy cellule communication bu jot na jot jot na média waaye si fàttali rek comme ni ko Omar rappelé tuuti par rapport ak bi nga xam ne kii Aïssata Tall Sall na koy def. mu mel ni yëg yëg yëgle la woon par rapport ak li nga xam ne moom lañ doon moom lañ doon xaar wala moom lañ doon moom lañ doon njortu euh, moom li nga xam ne euh, moom moo ne euh, képp ku nga xam ne am na par rapport ak takk takk na si li nga xam ne moom mooy moom mooy yëf yi wala kuñ convoqué si génn allo oui. waaw ok waaw yaa ngi yaa en direct nii ci Sénégal. waaw en na information bi même en jambatu la mhm. waaw lu solo ngi nii waaye nag en réalité li ma wax dëgg la mhm. mhm. rek yaa ngi wax par rapport ak déclaration bu euh, ministre de la justice euh, yow ah, euh, nan nga ko jàngatee woon kon mën nañ ko njort lu ni mel moom tey parce que li mu wax dafa wax explicitement que ni y a des procédures yi nga xam ne ñu ngi tegu ci ndox ñi nga xam ne dañoo expliqué woon parce que moom ay kàddoom laa laa mooy dafa ni Sénégal dëkku yoon dëkk bi xam ay loi ak ay règles yi ne dafa dañu encadré eh, dundu doomu aadama euh, suma suma suma fàttali ko bu baax noonu la ko illustré te je pense loolu rek waroon na ñàkk dal xel parce que évoqué woon na sax benn procédure disciplinaire bi nga xam ne fonction publique euh, la tukkee pour euh, procédure je procédure de radiation xaw ma nag tey kelee la motif véritablement moom bu ñuy xool ndax procédure disciplinaire boobu wala leneen wala li nga xam ne en réalité démb rek bu wax ji mhm. ci kanam jërëjëf Omar. incha allah nekkoon euh, mooy l'information bi nga xam ne bëggoon nañ